une population mhm. mais ñu gis la violence il aurait pu même avoir mort d'homme parce que bu fekkee ne dem nañu mhm. incendier mhm. Euh, siège ça veut dire que euh, vraiment notre démocratie n'a pas besoin de ça et euh, ma ci lancé une chose c'est le moment que justice me réconcilie réconcilier avec les Sénégalais parce que ce qui s'est passé à euh, Bakel. Mhm. avec euh, Bougan Gaydani. Mhm. ñu am euh, la violence ne na le même jour ñu le soir même. ben siège incendié donc ça veut dire que c'est le moment pour que justice bi dadi woné équitable

wante bu dul loolu euh, sénégalais tay jilé soxla soxlawuñ li nga xam violence nan nga daal di jàngatee pour ndoxteelu campagne bi nga xamné violence bi moo ko daal di marqué waaw <laughs> soxna Ndak euh, hmm. maa ngi lay nuyuwaat di nuyu ramé ak euh, internet yëpp di rafetlu aussi émission bi hmm. question bi ngay wax noonu loolu violence bi mom ak violence ak politicien ak campagne Sénégal ñu and té man dafay am sax léeg-léeg lu ma koy waxee sama biir kër bi ñu nekkee foofu dama ne naan ñoom politiciens yi man ay grands enfants laa leen tuddee. parce que mm-hmm. dañuy amee benn comportement boo xamante mënoo ko comprendre. Mm-hmm. mais violence bi nag nga xamante ni tey mi ngi nekk fii ci Dakar <coughs> ci xëccoo maa moom Dakar la loolu yàggatul le 17 dina leer. Mm-hmm. liste bi gagné yaa moom Dakar fi ne ñoom ñaar la yaakaar ne ñaari liste yooyu. mais dafa am loo xamante ni tey yaakaar naa ne. Euh, politique euh, jeu bu noble la boo xam ay bataille d'idées la tey mënoon nañu indi ñu xeexee ci ay xalaat yoo mm-hmm. xamanteni tay Dakar dina ci gëna a bopam wa dakar Ndakaaru ñu ko dëkkee dina ci gisee bopam seen bop mm-hmm. loolu mo ëppoon importance que ñu nekk ci violence bo xamanteni te bo seetloo depuis depuis 2019 ba légui ben mën nañ la wax ne la dañuy Sénégal ou bien même Dakar la ñuy wax dañuy nekk ci ben ben ben violence bo xamanteni mënul arrêté <coughs> pourquoi parce que boo xoolee tey jii nii te li ci ëpp moom su ma ko waxee léegi nit ñi dañuy wax ne dama xaw continuer mais waa Pastef à chaque fois que boo xoolee ñoom ñooy allumer toujours le débat boo xamante dafay une ni violence. Mhm. te il faut que nit ñi ñu wax ko parce que ñoom ñoom ñooy débattu indi à chaque fois que problème boobu noonu. Mhm. tey boo xoolee ñëw nga euh, démarrer nañ campagne bi avant campagne bi de démarrer et violence violence verbale moo gën a garaaw violence physique. Mhm. te ñoom loolu.

il y a quelqu'un même qui le dit un hein, ci n'est vraiment politique. Mm-hmm. jeu de noble à mm-hmm. chaque fois donc c'est le moment de le mm-hmm. prouver. c'est le moment de le prouver sur le terrain. Euh, c'est le moment de le prouver euh, Danaka, ñu euh, ki les campagnes fanaan li nga xam ne moo di këram tey jilee bu ñu xoolee mbir mi ni muy daal di doxee ndax mun nañoo ne li nga xam ne moo di justice bi exactement mu ngi def fa madame. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Mm -hmm. Man, pour man, euh, gay n'a pas fait pire qu'Abbas. Hein? Mm -hmm. Bougan n'a pas fait pire, et pourtant, d'un côté, mm -hmm. il y a d'autres gens qui ont ramené. Je pense à notre ami mm-hmm. et papa commissaire Keita. Oui. Mon juste ben euh, lo xam daf ko relayer une mm-hmm. une information bo xam daf ko relayer lire ko fenn relayer ko mm-hmm. ñu jël ko daal di koy ko mm-hmm. donc si quelqu'un se permet de dire en public et de répéter que moom mot assumé je le dis et je l'assume je le dis et je l'assume voire que plusieurs fois d'inviter à ay militants à venir euh, le lendemain avec des des armes ba dem bay indiquer armée, là ça devient grave là ça devient grave donc euh, il faudrait pas que cette justice là soit impartiale Mhm. arrêté mhm. pour des mesures de sécurité ils disent nous aurions voulu qu'il fasse la même chose pour le leader de qui est qui est que mhm. qu'on peut citer nommément parce que mon on peut faire la même chose avec lui parce que <laughs> comme ni gars yi di donc puisqu'il l'a dit et il dit qu'il l'assume donc euh, voilà nous aurions bien voulu que la justice fasse son travail et situer vraiment les responsabilités surtout euh, Babacar euh, mhm. tay euh, duñ sax wax jëmale ci li nga xamné ne moo di Abbas Fall yoyé au fond fond parce que mais gis nañ mu ne di ministre de l'intérieur dañ ko daal di mettre dañ koy mettre au devant de ses responsabilités mom mu génné dañuy dañuy génné communiquer ne dinañ def seen kéemtalaay carton ba jàmm am mais tay lool non est-ce que tey Abass Fall waruñu ko woon balaa sax dara ndax moom Abass Fall waroon na ah, fanaan ki fi nga xam ne moo di këram dañoo gis bugaan ah, da doon yóbbu ndimbal ñu jàpp yóbbu ah, moom le mu daal euh, dafa li mu def mun nañoo ne incitation à la violence la génne leen ay paaka génne leen ay kii ak ñoom seen dóor fayu loole aussi euh, ndax tey ji langum politique bi waruñu ko xoolaat waaw xam nga xoolaat bi xam nga ñoom hmm. Hmm. Euh, wax naa ko ci ben jataay bi ñu mhm. invité may leen ñom dañuy auto woon ne dañuy ñëw pour rupture changer li fi nek mhm. euh waxna ko même démb ci ben jataay bu ñu toog doon waxtaan ni ak ñen ñoo xamanteni ni il euh, mhm. dañuy supporter wat waxtaan ci ay xalaat ci réew mi bala euh, leen élection législative le 17 bi man ci li ma jàpp fekkoon ni ñoom ci liñ doon oote yaa il y a dix ans de cela

Mhm. deng nga na amul taxawaat ne fii ne nangam amul. Mhm. kon bu tout le temps c'est gis azura fi la taxaw saga fi président de la république mhm. de suite tout la même chose. mais kon ku def. mais